dikkati na lii bu ngeen ko gëjee dégg day bu mu leen bet tribune yéen a kaay naan maan sàll ngaari lam toora ma ngay fàq fàq jëm fan xanaa diggante Zik FM ak Sen TV yéen a kaay dee média bi naan maan xam nga ku jël kurpañ jëmale sa gémmiñ daa bëgg nga jaal lii nag la seene CNRA naral saa si tembe Zik FM ak Sen TV maanaam daal groupe des médias la ñu ne da ngeen di def propagande électorale maanaam faxas féete génn wet CNRA naan kon yéen Zik FM ak Sen TV da ngeen di jël benn candidat saa bu ngeen di ko roñ roñee di ko tudd moom ngeen di xëyee moom ngeen di gontoo te loolee ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi waajal ay élection daanaka xel sax da koo daal di nanguwul ndax yeneen candidat yi ci boppam amuñu fu ñu waxee te loolee mën na leen andi gàllankoor tribune yéene kaay naan kon CNRA déglul dëgg yi seen ti vi mooy télé boo xam ne émission bu mu mën a am muy émission yi nga xam ne ñi leen di seetaan bari na faaw ku nekk ci Benno Bokk Yaakaar di coalition pouvoir bi daal di teew porte parole bu gouvernement bi saa boo xam ne am na émission boo xam ne moo war mën a ñëw layal gouvernement bi woon nañ ko seen jotaay ba ci quatre-vingt-dix minutes chrono ñi bokk ci gouvernement bi ñëpp waaye tam ñi nga xam ne ñooy kàngam ci opposition bi sàkku ko te bëgg ko woo ñu leen ñu daal di ñëw bokk ci yooyu émission te dara man la dara duñu ko joxe rédaction des médias yi xëyee tey ab éditorial naan sikundik sikundik gi ne jommal na la yaakaaroon naa ne jommiteef goo xam ne day bàyyeekoo ci CNRA des médias tàqalikoon ak moom rédaction yi naan déet ndeke yoo CNRA ci ne la mi ngi làqu ci ruqam saa bu xëyee ma ngay xool nees tiitalee des médias ndeke nekkoon ci daal tëj kër gi jogu ca rédaction yi naan kon li ñu am mu gàllu sunu mbagg ñu limal leen quotidien bii di tribune mësta am xaajeg seen ak botti xonte ci li nga xam ni moom lay titré barki Dembo Ndiaye président Macky Sall ak Amadou Ba la titré ne président Macky Sall yónni na Ba ngir mu charmer ndaw yi ca bés boobee appel à ba Moussa Baldé lañ di def muy rassuré député yi la nga xam ne nag moom moo ko jiitu ndax mënees naa fa xas fenn wet ne daanaka dañuy naj gouvernement bi ci la nga xam ni moom mooy xibaaru tribune waaye tam ne yéene kaay bi dafay wax ci opposition opposition bi même su dee gëm sa bopp lay waxal loolee nag ñu bëgg ko naatable ak propagande mënta nekk propagande bi kay lan moo tax CNRA waxul ci journaux yi nga xam ne dañuy titre ci ab directeur général mobilisateur bu mag jël ay moto Jakarta daal di cay def ay toni ton ngir dalal président i Sall ma nga xam ne bëggul woon gaa yi Sonko gi daal di koy ëpp doole ca taliba lan moo tax waxuñu ci loolu tey jii ñu xëyee des médias te ci chaîne télé yi ci réew mi yëpp daanaka des médias mooy invité amu ci xàjj ak seen muy opposition muy gouvernement ñëpp lay boole ci taabalam diggante seen jotaay 90 minutes chrono ba ci toute la vérité émission yooyu ban moo ca mës a dalal njiital kër gi le mandat yéene kaay naan maan CNRA de daal dinay tegu gët Sen TV ak Zik FM ak La Tribune di leen xupp ne boo mooy tul tëj ràpp moom moo ci am laaj ba moom moo di Bougane Gueye Dany visibilité mbii mbaadu nag dafay déranger ñenn ñi Tribune yéene kaay naan maan en tout cas ma nga ca programme bu gouvernance moom gëm sa bopp Bougane war a tàmbali tey ji ay tournée ak open press Bougane Tour 2024 diggante Kédougou Matam Tambacounda Kaolack ak Fatick moom Bougane Gueye Mauritanie daal di ne maa ngi ñëw dal seen kaw diggante aljuma samedi ak dimanche Sud Quotidien naan man teeluk opposition bi ci yenn yi xew ci réew mi moo ñu jaaxal lan moo tax na gaay lu leen neex def ñenn ci opposition bi du ñu wax duñ ci addu ña ngay andi ay coppite ci Sénat ñu ne cell ña ngay def blocage ay rapport yu corps de contrôle bi cell ña ngay caxat-caxatee règlement intérieur bu assemblée nationale cell vox populi naan maan buñ ne cell abbé André Latyr Ndiaye curé bu gore ma ngay wax ñeenti dëggam président Macky Sall naan kon nañu bàyyi nag homme politique yi nga xam ne yaakaar lañu ci ndaw yi ñu leen di éliminer ci langu politique gi nañu bàyyi nag gor tànk gi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku muy am ci langu politique gi nañu bàyyi képp kuy doomu Sénégal ci élection présidentielle yi ndax ak lu ñu mën a def ak loo xam ne mën nañ ko pexe it yàlla mooy fal ka nga xam ni moo war a jiite réew mi libération yéene kaay nan kon en tout cas mim réew day jege ñaale Ousmane Sonko jàmm dañ ko fiy dégg Colline fay moom donte ab française la daal dinañ koy yóbbu kaso Mortala gay ni dof dellu na kaso Mansour Diallo ñu gën ko xam ci sóorale révolutionnaire dafa demoon Cap ñu jàpp ma nga ñuy entendre défendre Walf Quotidien naan kon Ousmane Sonko day dañ koy xaar fii fële-fële alliéem yi day Sonko wan na leen ni moom ci boppam am na candidat L'Enquête Quotidien naan kon fi mu day Ousmane Sonko ci manœuvre la nekk jóge nañ ci gatsa gatsa gi fas yéene teg xel président Macky Sall Amadou Ba Pastef naan kon combat bi du jaay doole Mamadou Sy Albert ne Sonko jëfam gépp coowal Adji Sarr la woon fi mu ne nag réel politique mooy dox ci réew mi réew mi Quotidien naan kon loolu waa Benno boo xam ne mission du jëli ay ñooñu Ousmane Sonko yóbbu ci Amadou Ba yoor yoor yéene kaay naan kon diggante Boun Abdallah Dionne président Macky Sall moom sëy ba tas na 24 heures yéene kaay naan kon Mouhamed Boun Abdallah Dionne nee na nag ña nga xam ne dañ leen roccee ci man yóbbu dañoo tànn nag diggante xaalis ak Sénégal bu leen gënal ña dem daal di jëli xaalis ña des ci man dese ak ngor yéene kaay bi ba tey di ma xamal ne fi mu toll nii day candidat boo xam ne yaa gën a jege askan wi boo moytul daal élection présidentielle yi mi ngi sa tànk ndax nag góor jigéen mag ak ndaw léegi ñëppay déglu xibaar bëgg xam ci réew mi moom la ñuy gën a dégg muy wax ci coonog réew mi kooku day à tout moment mën na jël réew mi laas yéen a kaay naan man en tout cas Anta Babacar Ngom ma ngay xamle ni violence yi nga xam ne ñi ngi koy def ci soxna yi day mën nañ ko dakkal ci réewum Sénégal fitna gi nga xam ne ñi ngi koy fitnaal soxna yi ci biir kër yi na dakk te war nañoo taxawal ab centre boo xam ne soxna su amuk violence ci biir këram mën na caa dem yebbi li nga xam ne moo nekk ci xolam te bal du tàkk sagar du xeeñ ñu jël nag loi bi daal di koy appliquer ba jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy teg soxna yi mën a dakk ci Sénégal booba collectivité territoriale yi day ñi ngi am ami jafe-jafe laas yéene kaay naan maan inspecteur bu trésor ak spécialiste yu finance locale Cheikh Ndiaye ma ngi cay andi ak saafara coordonnateur bu direction générale bu comptabilité publique ak trésor ma ngay xamle ne nag mënees naa organiser waat fiscalité ci réew mi ngir na collectivité territoriale yi mën ci gis seen bopp bu ñu jëfee acte trois de la décentralisation mënees na caa génn fexe ba ñi nga xam ne ñooy collectivités yi am koom goo xam ne daanaka ci seen gox lay daal di bàyyeekoo bu ko defee ndimbaluk état na fekk ñu ñoŋ ñàkk ndimbaluk état dina fekk ñu ñoŋ ci wàllu politique Cheikh Cheikh ne sama xel dal na ci tabb gi nga xam ne président Macky Sall tabb na ko Amadou Ba ndax àdduna toll na foo xam ne wutoon beneen mandat mënoon na indi leneen waaye ngalla bam nu tabbalee koo xam ne profil la ngir ñëpp mën a ànd ak moom 24 heures yéen a naan maan en tout cas booba lak de guerre moytul jafe dina ko am ndax nag Frank Timis daal nay taxawal ab société boo xam ne day tànqee daanaka la ëpp ca lag de guerre ba daal di yóbbu ci ay toolam yéen kaay bi naan man ay nag lañ koy dundalee yoo xam ne dañuy ratt meew ma waaye tam ay fasu course yoo xam ne daanaka borom alal yi daal lay daal di jëriñ kaay naan maan ci alal googee moom Abdou Karim Fofana ni ki démb doon nañ ko natal ab gafaam ministre du commerce daal di waxi dëggam xam le ni gouvernement gée ngi def kéemtalaay kàttanam ngir njëkk yi daal di wàññeeku ci réew mi ndax nag loo ci man ci déggit àdduna wërngal këpp lépp yokku daanaka benn milliard ak xaaj gouvernement gi dina ko def ngir dëwlin gi bañ a am yokkute ni ki àdduna wërngal këpp ci wàllu courant bi Abdou Karim xam le ni jëfandiku gi moo yokku wi li jëfandikoo ci courant gi ci tàngaay bi looloo waral ñu jóge nag ci benn tranche daal di tàbbi ci beneen te loolee nag saa mënta ñàkk ci réew mi tribune yéen a kaay naan maan Abdou Karim Fofana ma ngay xam leen ni fi mu ne yokkute bu amee urgence bi moom moo fexe nag ba marché bi du manqué loolee vox populi naan maan en tout cas ak lu mu métti métti jàpp ni Abdoulaye Gaye président bu collectif sénégalais bu établissement privé de sante yi ma ngay xam ni diplôme yi nga xam ne yenn ci infirmier sage femme ak assistant infirmier am ci réewum Sénégal day daanaka baaxul ci juróom-ñeent fukk ñaar ci établissement de santé yoo xam